daje bu fi amoon eh, ay fan ci gannaaw waaye daje googu daanaka benn ponk moo ci gën a fës bii nag Yewwi Askan Wi ko woote la ko woote ci ñetti poñ yoo xam ne yu am solo la ñu bëgg nag askan yu xam ni fiñu ñu toll nii ak fi jëm ñetti poñ yooyu day doon xolu xeexu Yewwi Askan Wi poñ yooyu nag dafa dëxëñ lu bari donc liñ ciy wax ci muy titre loolu mandarga la rek genre résumé la waaye benn bu nekk ci biir ay poñ ay sous point mi ngi ci ay tomba ngi ci biir yoo xam ne yu bari la moo tax dafay peeg li nga xam ne mooy yitteew réew mi yitteey réew mi poñ bi ci njëkk mooy yorin gu ñaaw gu ñu yoree koom-koomu réew mi ñun ñëpp ñu war a xam ni nag kenn ku ne li ngay dund si jafe-jafe xam nga ko xamoo ko li ko waral mooy bokk na ci li ko waral wala li gën bari ci li ko waral gannaaw ñàkk gis-gis bu leer ci ni ñu yoree réew ci lan ma war a nekk priorité réew priorité yooyu nekk mbay mi càmm gi napp gi ak ñu téye suñu alal réew ci ressource naturelle bu ñu weesoo loolu fexe ba am ay industrie yu koy transformer ñu gis ni euh, fukki at yi ñu weesu safaan wala ñu def boo jël ci yooyu nërmeelu na mbay mi amatul senegal bu leen fàttali dañ ñëwoon 2017 Sénégal dootul jéggaani ceeb léegi nee nañu 2030 xaw ma 2000 lan mbay mi nërmeelu na man mii jóge woon nekkoon temps ci àll bi baykat yi ma seeti woon yépp ku yàlla may xolu yërmande rek war nga leen yërëm te ñaanal leen ndax sonn nañ napp gi nërmelu na ndax jaay nañu géej gi ba jën amatul càmm gi nërmeelu na parce que su mbay doxul yeneen ak yeneen doxul industrie doxul ba ñu mun a def ay aliments de bétail ni mu war a doyee ñëpp xam nañ ni dëkk boobu càmm du am li ko firndee rek mooy tabaski bu jotee fu ne la ñuy daw Mali Mauritanie fu ne pour am ay xar industrie amul ci réew mi li fi nekkoon as tuur ci tissu industriel daanaka li ci bëri ndërmeelu na tamit kon ñu ñëpp dëppoo nañ ni Macky Sall lajj na parce que yooyu bu doxul mënoo jox ndaw ñi liggéey mënoo fexe ba réew mi moom boppam ci li muy soxla ci li may lekk ak li muy jëfandikoo moo tax jafe-jafe yi tar loolu amu fi waaye safaan bee fi am tubaab yi ndax ko rek naan ko tabaxal ay ay yoon tabaxal ay stade tabaxal ay terrain parce que ñoon yooyu leen arrangé ñoom suñu économie taxaw dëgër arrangé wu leen lépp lu ñu mën a jox liberté ak indépendance arrangé wu moo tax dañuy lebal xaalis ba pare joxoon ñu fi ñu ko war a dugal foo xam ne ñoom seeni entreprise ñoo ci mën a am li ñu bëgg alal gi yëpp dellu ñun ñu deseeg bor bi moo tax inauguration yu bëri de te neew ma baaxut waaye am na lu ko waroon jiitu am na lu ko waroon jiitu te lajj nañ ci kon boo génnee aspect boobu nga xam ne mooy ñàkk gis-gis bu set bu sell bu méngoog soxla réew mi ñaareel bi nga xam ne moo waral coono jafe-jafe sénégalais bu ne ku ko xam ku ko xamul ndax léeg-léeg nit dina jàmbat ab jàngoro te xamul lan moo ko waral yow taximaan bi lay waxal yow charretier bi lay waxal yow gone gu yor moto Jakarta yow sama yaay ji di jaay gerte caaf fii ci bopp koñ bi yow nappkat bi yow élève bi ba ci yow médecin bi intellectuel keneen ak keneen seen jàmbat bokk na ci li ko gën a seeni jàngoro bokk na ci li ko gën a waral mooy dërëm gi waroon dugg ci réew mi ay nit damm ko seen poos jàllale ko mu dem feneen moo tax loolu ku ci amul yëg-yëg rek ba mu jaral la nga takk sa ndigg yow xamoo réew mi lu ci nekk amul lu mata xeex lu weesu loolu réew yi nee naa leen keroog foofu la ñuy gënante foofu la ñuy ëppalante am na réew boo xam ne ministre bi fa ne carte bi ñu koy jox carte bancaire bi ñu koy jox pour liggéey bi bu demoon tey restaurant añee fa ba pare ñu ne ko 30 euros nga war a fay mu jël carte boobu fayee ko ëllëg mun na ci am problème bu koy bu kaso kii nag ay milliards la ñuy wax te dérangé kenn loolu mooy premier poñ bi nga xam ne moo ñuy dajale gannaaw ëllëg ñu bëgg senegale yi am yëg-yëg ci lii lii du mbirum kenn de wax dëgg yàlla ñun ñi fi toog ñëpp amuñu alal de waaye ñoo ngi sant yàlla jàpp naa ni am na senegale yu ñu tane tuuti kon bu ñu wootee wootewuñu suñu wooteeluñu suñu bopp ñaareel poñ bi nga xam ne moo tax ñu woote mooy lii nga xam ne Sénégal amoon na ko ci démocratie te ñépp xam ne dellu na gannaaw ñépp xam ko amul ku mu réer mel léegi rek bi ñuy def conférence bis maa ngi lire euh, au commissaire xaw ma la Nations Unies mu ngi bind wax ni nañu bàyyi Pape Alé ñaar ci ni mu gën a gaawe mm-hmm. ministre affaires étrangères tontu ko ci saa si ndax moom dafa def tweet naan ko loolu amul ak justice bu indépendant rek seen wax yooyu ñuy jaay tubaab bi rek kooku tontuwaat ko ne ko non seulement nee nañ ma santeem fi mu ne nii mu ngi ci xottu gerte waaye li tax ngeen jàpp ko dafa waroog ay convention yoo xam ne Sénégal bind signé na ko foofu la ñu toll ñi ñu doon dem jaay sax naan leen Sénégal opposition bi moo violente opposition bi ñoo respecté wu république bàyyi la ñu ñu duma opposition bi ñooñu sax léegi xam nañ ñii ñoom ñoo violent ñoo dul démocrate ñoo respecté wul les te li ci gën a garaaw nag mooy attekat yi gis nga tey opposition Sénégal société civile Sénégal journaliste Sénégal euh, euh, nu mu tudd influenceur Sénégal seen adversaire du Macky Sall de suñu adversaire bi gën a mag mooy justice léeg-léeg soo ko waxee ñu ne bul maasale parce que am na ay magistrats yoo xam ne wax dëgg yàlla néeg nii man leen waaw am na waaye ñoo ñu ne ci biir sax te xam injustice yi am ci biir justice ni muy doxee te koo ci wéetal mu mu ne la xam nañ ni mu demee dafa jaadu ñooñu addu parce que dénoncer lu dul dëgg ñëpp la war tey ñun suñu adversaire du Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar xam nañu duñu seen morom ñoo la ko gën a xam kuy xam suñu adversaire du APR APR a gën a xam ni duñu moroomam te dara waralu ko lu réew réew mi leen woon gannaaw askan wi leen woon gannaaw te jublu ci ñun waaye Macky Sall justice la jël am nu ko monté ci ay post yoo xam ne ñëpp xam nañ ko ci ay juge d'instruction ci procureur de la République ak ci ñeneen ak ñeneen ñu mel noonu cour suprême ne leen nag ci yéen laa yaakaar masalan tey buñ doon dem élection daanaka sénégalais dinañ ne kan moo war a a dem élection tey kan moo war a mun a dem élection tey te lépp nag justice dañuy instrumentaliser gannaaw bi ñu modifié code électoral ba dugal ci lu ci nekkuloon ne léegi ku am condamnation même avec sursis munoo nekk candidat ñu ne léegi nañu xool nu ñuy utalee Déthié benn kayit buñ ci paree ñu ne nañu xool nu ñuy utalee Aïda Mbodj benn kayit un deux rek kenn ne daf maa diffamé wala daf ma xeelu ñu ne ah condamnation avec sursis mëna soo nekk candidat justice mooy principal problème mu réew mi président union des magistrats bu ñu waxee mu jóg fëgg dënn waaw bi ay ministre Macky Sall taxawee xas of nag ne par Pastef la ñu bokk parce que couleur yi xas waa Cour des comptes parce génn nañu rapport lan moo gën a garaaw loolu Cheikh wax na ko léegi ana union des magistrats wala union des de de Macky lañu moo ne tey su ma paree conférence presse boo moytul ñu génn communiqué principal problème mu Sénégal justice la te chaque jour ma ne magistrat yi ci réew mi ngeen dëkk moytu leen luy taal réew mi moytu leen yu ñuy fitna. te bi ngeen di waat da waat ne di ngeen rendre la justice au nom du peuple sénégalais ñaata nit ñoo fi taxaw ne rey leen Ousmane Sonko procureur da leen lan moo gën a garaaw loolu cim réew Ousmane Sonko